bismillah kon ñu fàttali ne ba tey rek ñu ngi ci téere bi nga xam ne mooy jawharun nafis nga xam ne cheikh ahmadou bamba moom moo ko def way ko tibbi ko ci laxdari yu ñu tolloon nag fi muy waxee sart julli ñu limoon ci jiblu xibla ak bàyyi jipp wax ak jipp jëf ju bokkul ci julli gi waxoon na ci sart julli suturaal awra loolu nag la bëgg a leeral wane xawraw góor lan la ak xawraw jigéen góor ak jigéen lan lu ko ci lan mooy xawra ci yow la nga xam ne mënoo koo ñàkk sàng ngir nga mën a julli wa awratu rajuli doona may ni maa bayna suratin wa rukbatayni aman nisaaw nag fa jamixul jismi yuaddu awratan la daazil ilmi wax na dëgg nee na wa awratu rajuli awraw góor nag doona may ni ci lu dul nar maa mooy la nga xam ne bayna suratin nekk na ci diggante ab jumbux wa rukbatayni ak ñaari batiwoom fekk loolu leeraloon naa ko ci dar si bee jàll góor la munta ñàkk sàng rek mooy la tàmbale ci jumb ba ca ibati woomam aman nisaaw bu fekkee jigéen la nag nee na fa jamixul jismi mbooleem yaram wa rek yoo abdu def ni ko muy xawra la daa zil ilmi fa borom xam nga nee bu dee jigéen nag moom dañ naan lépp yaramam rek xawra la kanam gi nga xam ne ñaare dañ naan ko du ko sàng ak loxo yi sax day luñ ko may rek ngir bañ koo sonal kon jigéen buy julli moom léppam rek lay sàng daan ne illal lu dul la nga xam ne rek ustus ni seetee nañ ko ca te mooy minal kaf fay ni ñaari tenq ya wala wajjixe ak kanam ba doona rësi ci lu dul sax bopp ba bopp ba sax nee da koy muur war a jilee ni ak tànk ya jigéen ne na lañ ko may lenn rekk la muy ñaari tenqam ak xarkanamam loolu lañ ko may mu bañ koo muur buy julli waaye lu dul loo rek buy julli daf koy muur nee ba ci bopp ba sax daf koy muur ñaar tànk yi sax daf koy muur moo jigéen li muy sol dañoo bëgg mu wàcc ba sëmbartalu ci ay tànkam wala mu sol ay kawas wakrax na nga sib nag salaatan julli fi saraawili ci tubay isaalam yëkku ndem nekkut shay'un dara faw xooxoo ca kawam jër kon def na la yool isan ca boobe nee nag bu ma la waxee na la góor bu sàngee li ci la tàmbale jumba xam ba ci wati woom rek mën naa julli nee na ba mu tax nga doyloo loolu neena na nga sib nag di julli ci tuba yi kase xëcc sa tuba yi waggante ko rek julli ne loolu bul ko taamu faaw rek del fexe ba jot sollu jot sëkk rek wakkarax na nga sib salaatan julli fi saraawil ci tuba yi isaalam yëkku neem nekkut sa yoon dara fawqowoo ca kawam nee na kon def na la yool tiyaaba isan ci boobee ne du mu tax mukk nga taamu col gu gàtt booy julli na nga sol yére yu jot hmm. war na ji si sow bi aji soobe buy mbalaan bu ko waxee saw bu yére la ci jiblu rek isaa maa faqade ndem ñàkk na maa un ndox maa un la ci jiblu way wee tax am sa gi feeñul wax saw ba ak beneen yére bu mën a sol itam amu ko ñàkk ga nag lanaan min ci ginnaaw ak ci ginnaaw ak sàkku goo xam ne àddima ñàkkeef na ko day koo xam ne ay yéreem daa amee soobe te amul ndox mu ko mën a laabale te itam amul beneen yére bu mu mën a sol wana jisu saw bi aji sobe wuy mbalaan te mooy aji sobewu ay yére isaama ma maawun dem ñàkk na ndox mum ko raxase wa saw ba ñàkkit yére beneen bu mën a sol min baadi timaasin ci ginnaaw ak sàkku mooy wut na ko waaye àddima ñàkk day julli biha ak noonee mu nga xam ne dafa amee sobe in yaxaf ndem ragal na xuróoja waxtiha génn waxtu wa bi xawli man ci waxi ka nga xam ne arafa xam na la muy wax mooy fa innahu ndak moom yu salli day julliwaale biha ak sobe jooj ci yére yi in yaxaf neem dafa ragal xuruja waxtiha génn waxtu wa bi xawli man ci waxi ka nga xam ne arafa xam na ndax dindi sobe rek borom xam-xam yi dañu wuti ci ndax waajib la wala dafa nekk rek sunnatul mu akkat moo tax su fekkee yére daa am lu ci am sobe te ndox mu ko raxase amul beneen yére bu mu mën a sol su ragalee ne waxtu ba day jaada rek noonu lay daal di jullee ndax dañu wax ba tàyyi waxtu moo gën dabug laab hmm. moo tax ma ne way yëkkun neem dafa nekk mu wax xiran di aji yeexa julli li adami taharati ngir ñàkk laab kon sax faqada asa mooy na zanni ami borom xéewal yi balaa nga kiy julli ngir ne man laabuma sama yére yi mënuma julli mukk te raxasuma ko te amul ndox moom ko raxas te amul beneen yére toog toog ba waxtu wa far jàll ngir loola kon nee na sax baakaar lay am ca yéex gëm yéex a julli ba waxtu wa jàll kon jamono bu ne am solo rek mooy def liñ la sant te xam ne boo ko defee wàcc nga kon daa waroon a julli daa wax nañ ba tàyyi na dab waxtu moo gën dabuk laab man koo xam ne nag moom la muy jël amul liloor yi ngir ak rafle rafle daa tax ba amul maa lenn loo xam ne yasturu mën naa suturaale bii ci moom awratuhu awraam kon it nee na sallaa mu julli rek kadaaka ca noonee mu mel ci yaramu kase fanta bi na nga yeewu nee koo xam ne nag moom amul yenn yenn yére yu mën a sol nag taraf lee tax daa amul dara dara lu mën a sol ba mu wër ko ndax dana def yaramu neen taxaw di julli ñu ne ko waaw dutee noonee lay def def yaramu neen taxaw di julli ndax ba ngay sori ba ngay soli yére it sa borom taxutoon ndax sa borom moom sa lenn ump ko ñu ngi gis sa lépp ba ngay soli yére sa digganteeg jaam ñen da caa rafet rek nga sol sàng sa awra te suturloo waaye nee na boo amul dara daara loo sol itam du bu julli jotee nga julli donte ko yaramu neen nga def man koo xam ne lam yi jid amut lil yi ngir ak ba tax na amul maa lenn loo xam ne yasturu mën naa suturaale bii ci moom awratu awraam neen du tee sallaa mu julli kazaaka ca noonee mu def di yaramu kase fanta bihi yewul wa moxtiwul xiblati aji mooy xibla nag ma muurun ku ñu digal lay doon bi an yoxida ci mu baamu fil waxtu ci bu waxtu wa jàllut salaatan julli fanta bi yeewul nee koo xam ne dafa mooy xibla ba julli ba pare door koo xam nee su waxtu wa jàllu dañuy sopp mu baam waat julli ga wa moxtiwul xiblati aji mooy xibla ma muurun ku ñu digal doon bi an ci mu baamu fil waxtu ci waxtu wa salaatan julli googee mu julli woon fanta bi yeewul nga jàpp nag takk takkub saa boo déggee ñu ne bu waxtu wa jëlul baamu ko rek la muy tekki mooy la nga def baax na te bu waxtu wa jàllee jëratul baamu koo xam ne bi muy julli daa jàpp ne rek fii mooy xibla fekk mooy na ko te yëgu ko naka mu julli ba pare toog di ñaan rek nga ñëw fekk ko mu toog jëm saalum nga ne ko yow baat bi nga julli nii nga jëmoon mu ne la waaw nga ne ko ah kon juum nga xibla baa ngi nii kon su xoolee gis ne waxtu yu jàllagut sopp nañ mu baam waat julli kooko waaye su waxtu bi jàllee sax du ko baamuwaat te it lam defoon baax na wa kullu ma lépp loo xam ne rek dañ naan nañ ko baamu fil waxtu ci waxtu wi wa kullu ma fil waxtu mooy lépp lañ naan baamu ko ci waxtu wi rek la muy tekki mooy laa xayru la tekki mooy laa du defu ko baamu laa xayru maanaam boo ko bëggee wax waxin muqaddam da nga naan wa kulluma lépp loo xam ne rek du def na ko baamu fil waxtu ci waxtu wi xamal ne laa xayru kenn du ko baam bu waxtu wa jàllee mooy lépp lu na la ji baamu ko su fekkee waxtu wi jàllul rek ma fahum lañ ciy dégg mooy su waxtu wa jàllee jërul baamu wa kulluma lépp loo xam ne du def na ko baamu fil waxtu ci waxtu wa nee na xamal ne laa xayru laa xayru mooy kenn du ko baamu su waxtu wa jàllee mhm. ndax nee lu mel noonu foo ko fekk rek la fa innaha naka loolee fadilatun ngëneel rek lay doon nil te yàlla na nga am almuraada na mel ga nil te wax yi moom mislu nafli dafa mel na naafile rek naafile bu rawee kenn du ko fay laatu aadu kenn du ko baamu hmm, moo tax mu ne mislu nafli dafa mel na naafile rek laatu aadu kenn du ko baamu mel ne raaka yooyu julli nga xam ne naafila rek la mel ne raaka yi ngay dawal njëkk tisbaar ak takkusaan yu mel noonu nga xam ne la su jàllee de su ko fay du ko fay moo tax mu ne in xorooju waxtiha ndéem génn waxtoom wa xadd uminu wóoloof na ko yaqinan ci lu leer mi ngi mel ne naafila rek su waxtu waa xasee moom boo dikkee farata ja ngay fay rek waaye doo fay nag raaka ya nga daan dawal njëkk ngay julli su fekkoon ne dangaa def njëkk ngay julli tisbaar da dawal ñeenti raaka ak ginnaaw tisbaar su la waxtu yu jàllee ba jant so tisbaar ja ngay fay rek waaye doo fayaale la nga xam ne ay naafila la yu ci daan ànd hmm. bunt boobu it mel na ne foofu la kon ñu dugg nag ci faratay julli ci boppam faslun fii faraidi salaati lii luy teqalee la ci faratay julli moom lay jàngale fii hmm. mu jàll wax nag ne عبد فرائد الصلاة يعرف لكن ما الشيوخ فيه اختلفوا وبعضهم ذكر خمسة عشر فريضة والبعض ستة عشر وانا دقنا أن عبد فرائد الصلاة اللي مفرطة جلي يعرف ديفنا خم لكن ما الشيوخ وعينك سرين سمي برام خم خمي يختلفوا ووتنا فيه جنياتلا يختلفوا ووتنا فيه جمم ووتنا جلمبي wa baaduhum lenn ci ñoom dakara daa tudd xamsata asara fukk ak juróom far yi faridatan ci ay farata wal baadu lenn la muy lenn ci ñoom boroom xam-xam ya tudd sittata asara fukk ak juróom benn waaye nag moom li nga xam ne abdurahman al axdari lim na ko loolu rek lay lim ndax abdurahman al axdari moom moo def téere bu ñu wax laxdari yu sëriñ tubaa jël ko way ko kon lim ba abdurahman andi rek lay andi mooy fukk yi ak juróom mu ne laakinama waaye la nga xam ne nag dakara tudd na ko al axdari yu ko jóg laxdari yu muy abdurahman al axdari yu loolee man aati dana dikk bii ci moom li yaxfada ngir mu mën koo mokkal asabi yu gone gi waaye nee na man damay topp rek lefum abdurahman al axdari yu la mu indi rek moom ma indi ko yàlla wax ne awaluhaa la ca njëkk nag ci faratay julli niyatunaa mooy suñu yéene al muayyana ba di bu ñu ràññetle booy julli da ngay yéene te ràññetle yéene yi da ngay wax ne fas na maa yéene julli tisbaar kon faaw nga bàyyiwaale ci xel tisbaar yi su mata takk biiru tuxoo topp kàbbaram ba al mu bayyana ba di buñ biral nee na kàbbaru armal boobu nga xam ne mooy njëkk ci julli gi danga koy boole yëkkati say loxo ci kaw nee na kàbbar boobu moom it xamal ne farata la kon yéene farata la waaye kàbbar bi njëkk ci julli gi moom itam farata la wa misluha akum kemam faatixatun faatixatul kitaab faatixatul kitaab farata la sumal qiyaamu topp taxawaay ba li ajjili haatay ni ngir ñaari yii kama nassandi ku mu ko yaxale al imaam mooy limaam ja te mooy imaam abdurahman al axdari nee na xamal ne faatixatul kitaab bi ngay jàng farata la waaye ne na ñaari taxawaay itam farata la sumal qiyaamu li ajli haatayni ñaari taxawaay benn bi mooy taxaw gi nga taxaw di wax allahu akbar taxawaay bi ci des mooy taxaw gi nga taxaw di jàng faatixatal kitaab kon jàngi faatixa farata la taxaw ga nga taxaw di ko jàng farata la allahu akbar ju njëkk jooju farata la taxaw ga nga taxaw di ko wax farata la loolu mooy sumal qiyaamu li ajli nii ngir ñaari taxawaay yi kama nassa ndiki mu yaxale mooy ndiki mu ko bind al imaama imaam ja xamal ne sax mboolem lu ñu la wax ne la farata la rek su fekkee looy taxaw di ko def la taxawaa ba day nekk farata comme moom lépp lu ñu wax ne la farata itam su fekkee looy toog di ko def la toogaay ba day nekk farata comme moom lépp lu ñu la wax it ne la sunna la xamal ne bu fekkee looy taxaw di ko def la taxawaay ba nga taxaw di ko def day nekk sunna comme loola su dee looy toog di ko def tam toogaay bi da ko yóbbaale ci sunna sa moom itam kon farata yi ak sunna yi dañuy yóbbaale maqaam bi toujours dañuy yóbbaale étape bi nga koy defee dañ koy yóbbaale ci ab àtte waxdul na nga lim rokon an ab rokon su ma rafaan topp ab yëkkatiku minhu ci rokon bokk na ci farata yi nee na sëgg ci rokon ak siggi ci rokon sëgg nga sëgg jàpp ci say wóom di rokon loolu farata la siggi ngay siggiwaat ba taxaw jonn itam farata la wasjud na nga sujjoot jëpp jëbhati ci ab jë warafaate nga yëkkatiku minhu ci sujjóot ba daa mel ne ku la digal na la sujjóotal ci sab jë te nga yëkkatiku fekk daf laa bëgg a wax rek ne sujjóot boobu ngay sujjóot farata la yëkkatiku gi nga yëkkatiku ba toogaat jonn itam farata la loolu moo tax ne wasjud na nga sujjóot alal jëbhati cib jë warafaate nga yëkkatiku minhu ci sujjóot bi soo xoolee fi nga toll nii rek limagun nga juróom-ñeent ci ay farata soo ko bëggee tënkaat mooy nga wax ni yéene ak kàbbaru armal ak taxaw ga nga taxaw di kàbbar ak jàng faatixatul kitaab ak taxaw ga nga taxaw di ko jàng ak rokon ak siggi ci rokon ak sujjóot ak siggi ci sujjóot loolu rek la mu ne ba tey waxudd lim nañ min haa mu bokk ci faratay julli al i'tidaal li ñuy wax i'tidaal i'tidaal nag mooy siggi ba jub kocc i'tidaal da nga ko def ci siggi ci rokon ko def ci siggi ci sujjóot boo siggee ci rukon mooy da ngay siggiwaat ba taxaw jonn ñu ne yow def nga li ñuy wax i'tidaal boo dee siggi ci sujjóotam da ngay siggi ba toog jonn ñu ne def nga li ñuy wax i'tidaal léegi gis ko yàkkamti koo xam ne daanaka du siggi siggi bu mat bu rukon bay siggi ci rukon buy siggi balaa jëmm jee jubbantiku sax mu dem sujjóot loolu boo ko defee bàyyi nga ñaari farata li ñuy wax i'tidaal ak tumaaniyya te subaa sujjóot li mën naa yàqu kon looy def rek wax dëgg yàlla jox ko yitte ba defee kon nañ ko diglee daf cee am solo wallazina hum ala salaatihim yu xaafizun la alquran wax yu xaafizun nag mooy wattontig julli gi ba defee kon nañu ko digle xaashiun ja nag mooy la ca màggu yàlla daayimoon ja nag mooy nga saxal ko faaw kon nee na bokk na ci farata yi siggi ci sujjóot ba taxaw joon li ñuy wax i'tidaal wakkasaa naka noonu abdu tumaaniti limub dal ga waxi sa jàppeef na ko anhum jële ca borom xam-xam ya leen li ñu wax tumaani itam farata la daal ak tumaani yi nag dañoo dend ndax daal mooy bi nga siggee ci rukoo nga siggi ba taxaw ba sa jëmm ji jub kocc ñu ne def nga li ñuy wax daal nga ne fa tekk as ndiir su gàtt ñu ne def nga li ñuy wax tumaani ya tumaani ya mooy nga ne tekk ba say cër dal nga door a sa gàtt kon daal boobu ak tumaaniya farata la mat naa bàyyi xel soo ko boolee nag mu nekk fukk ak benn ci farata yi tartiibu naa suñu toftale nag baynal faraidi diggante farata yi na suñu toftale diggante farata loolu nee na farata la tartiibu naa suñu toftale baynal faraidi diggante farata yi loolu ci farata yi julli ci la bokk mooy rakaa bi nga tërale ko ni mu war a tëdde nga xam ne lenn du ci jiitu moroomam nga xam ne kàbbaru arbal ngay njëkki te bi nga ko defee jàng faatixa nga ciy teg door a ñëw ci rukon door a ñëw ci sujjóot nga xam ne rukon du jiitu jàng faatixa rukon itam sujjóot du ko jiitu mooy ne rakkan bi sofaloo nga sofalee ko noonu loolu farata la soo taxawoon wara jàng faatixa ku saar nga ne ah naa rukon ba siggi ci rukon rek su ko defee door a jàng faatixa ku saar nga xam ne man bu ma ko jàngee rek damay def direct sujjóot benn yoon loolu boo ko defee julli gi yàqu faaw rek jàng faatiha mooy jiitu rukon faaw itam rukon mooy jiitu sujjóot loolu mooy tartibuna baynal faraidi mu ne assalaamu sëlmal ba itam julusuhu ak jataayam ba min al bàyyi ko la tàmbalee ci alja ila kumba ci miimu kumga yaa xulaamu yow ngóor si ne bokk na ci farata yi assalaamu muy sëlmal muy baat asalaamaaleykum soo taayaa ba eggal asalaamaaleykum ji ngay wax ngir sëlmal ne loolu ci fartay julli ci la bokk waaye nag jullu suufu ak jataayam ba itam nee toog ga nga toog di wax asalaamaaleykum moom it farata la daaneel jataay ba nag mooy min al mooy la tàmbalee ci al ja ilaa kumba ci miimu kum ga yaa xulaama yow ngóor si dalay wan ne rek fi nga taayaa ngir sëlmal booy boo xam ne ñeenti xew-xew am na fa yu bokkul ndax bi nga tàmbalee taaya ci attaxiyaatu lillahi azzakiyaatu lillahi dañ naan la sunna la togg nga toog di ko def tam sunna la bi jeexee ngay julli ci yent bi ci salaatu ibrahima googu dañ naan la sunna la togg nga toog di ko def tam sunna la ba jeexee ngay ñaan nag moo xam xeetu ñaan goo bëgg ñaan ndax bérébu ñaan la ñaan googu ngëneel la lu ñu sopp la togg nga toog di ñaanit lu ñu sopp la xam nga loolu ñetti xew-xew la taaya ja ak julli ko ci yonente bi ak ñaan gi mu des nag sëlmal gi jëmmi sëlmil gi nag lañ wax ne farata la kon toog gi nga toog di ko wax farata la kon boo doon wax asalaamaaleykum boole koog jukk rek julli gi day yàqu waaye nag du ba nga toogee di taay ba ba ngay sëlmal toogaay bépp nekk farata déedéet toogaay bi fa mu nekkee farata rek mooy ba nga toll ci war a wax asalaamaaleykum wa chartu niyati charte bi yéene gi it la dal alaami fa way xam ña xiraanuha aku lënkaleem takbiratul ihraami kàbbaru léegi li ko def fukk ak juróom ci farata yi nag mooy baatu maanaam kàbbar bi lënkale gi nga koy lënkale yéene ji booy tàmbali julli gi dañ naan la yéene ak kàbbar armal lañ leen lënkale lënkale googu farata la mooy maanaam euh, wa chartu niyati sartu bi yéene ga la dal ilaam fooy xam ña xiraanuwaa ak lënkaleem ak takbiru ihraami kàbbaru armal bi mooy bay ne wax ne fas na namaa yéene julli de lënkaloog kàbbaru armal nga xam ne yéene xol la lu sa xol di fas rek la allahu akbar ji rek salaam mi ñu koy wax su ko defee ñaar yooyu lënkaloo loolu la wax ne farata la su ko defee nag mooy fukkeel bi ak juróom ci farata yi nga xam ne moom la sëriñ bi lim ndax moom la abdurahman al akhdari lim ñu koy def fukk ak juróom benn nag am na ñoo dañ fiy dugalaale yéene maanaam yéene roy par exemple tey bu fekkoon ne dangaa fekk imaam di julli nga dikk bëgg ànd ak imaam ci julli gi dañ naan la da ngay yéene joxe waxtu wi yéene waale ànd ak imaam imaam boo ko fekkee mu julli nga ne fas na ma yéene julli rek kàbbar ci ginnaawam dañ naan ànd nga ak moom ci sëgg si gi waaye ci dëgg-dëgg duggoo ci ak càllaleem parce que loolu danga koy yéene door koo am moo tax boo fekkoon imaam di julli da ngaan fas na ma yéene joxe waxtu wi te fas ko yéene ànd ak imaam yéene gi nga war a yéene waale roy imaam nag daa am ñu koy faral di tuddaale mu di ko def juróom benn من عبد الفرائد اللي مفرطيا هنا في انتهى لجيخي على ما جيكا ولا خمنا قد حكا نتلي نكو الأخضري كوجو الأخضري الحاوي كأجلاق العلا كويكا آه كون خمنا وين ديل سواتي رك إن شاء الله